asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen bokk yi ñu diglu ak yéen bokk yi ñuy seetaan ñoo ngi am mbégte mu rëy ak kontaante mu rëy di leen dalal fii ci kër Cheikh Ahmadul Bamba ñu gën koo xam ci Daaru Rahman doon kër Serigne Son bu doon kenn ci këri Cheikhul Khadim ah mu doon kenn ci kër këri njabootu Serigne Touba gi muy Cheikh Abou Madiyana ak Serigne Son bi kon ñu fas yéene woon leen leeral suñ kemt kàttan li ñu ci xam. Ah, mbokk yi ñuy seetaan. barab bii bii ñu taxaw nag day bokk ci barab yi nga xam ne <clears throat> mën nañ la day jeexiti lu Seexul Xaddim mën nañu sax suuf si dafa tedd teddaay ngoo xam ne moom moom la ñuy xoole sëriñ bi ndax dafa bari ay jeexital yoo xam ne dañ ci agsi tuuti ci kanam ah fii ñu taxaw di wax ah fii ron gi ak dimb moo nekkan fii ñu ñu ñu miir nii wax nañ ne fii fi la euh, ku tedd ki la woon euh, Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Serigne fàllu wax na itam ne fii waa boo gisee ngeen ko ab bant janam moo fi nekkan xam naa bi ko jamono ji kii lañ fi def ron gi ron gi yàgg na yàggaay boo xam ne mandargam feeñal lool ngir bañ mu réer fii tam wax nañu sëñ Maxtaar Bintaloo fi la yesloo ci ku tedd ki wax nañu itam te euh, suñ maam bu borom Daaru fii ci barab bi la ko ku tedd ki yiwee kon fii day mel ni ay jeexital la yoo xam ne yu yu yu am solo la fii itam ci dimb fii ñu ñu ñu miir nii ak dimb moo fi nekkan dimb goo xam ne tam yàgg na fi lool di lu fi sëriñ bi nekk mi ngi fi sëriñ bi jamono yi fi nekk mu sa nangu mukk dimb gi gi gi gi dee waxtu wu nekk dañ daa wut ab raakol di ko jaarale fii di ko samp ci dimb gi ngir muy meññaat ngir jeexeetali sëriñ bi fi nekkoon ba tax na aman na lu mel ne ay lëm lëm yooyu tam ku tedd ki daa seexul sëriñ yi bu daa wut ay kayit maanaam alxuraan yeeg felleti mbind yeeg yooyu di ko def ci lëm yi ñu di ko tey ak ciment ba tax na bi ñu dimb gi tañ bañ jamono dem ba soppi ko sëriñ si Ahmadou Mbacke moo ko dindil woon ci ginnaaw ba ci amee ndigal denc ko ci biir nga xam ne ay bant la yoo xam ne xam naa bët da ci amul tege ngir fonk bu mu ko fonk mooy mooy barab bi lii nga gis itam day jàkka jàkka joo xam ne ah wax nañ ne jàkka ji njuga njuga kebe moo ko fi defal ba mu ko fiy def ci ndigalu sëriñ son bu ba mu ko fiy def itam dafa mel ne dafa am lu mu doon sàkku ci sëriñ bi sëriñ bi moo wax ko ne ko mu ne ko boo bu ma lii ma lay ñaan ma laa bëgg a tabaxal ab néeg sëriñ bi ne ko nga tabaxal ma néegu bi yàlla muy jàkk jii dey moo ma gënal farataal loo ma mën a defal te jamono yi ko sëriñ bi wax ko qiyaas bee sëriñ bi dëkk woon booba tabaxu ban la woon maanaam bi ko sëriñ bi wax booba ci tabaxu ban la dëkk waaye ñorgu ko diina ñor ak ñor ko sëriñ bi ñor moo tax mu santan ko mu defal ko fi jàkk ji jàkka ji ci yooyu jamono kokkiyaas la waaye ci yooyu jamono ku ne xam na ne xaalis lu baree bari la woon ay million la woon ci doon ji jamono moo tax sëriñ bi def fi jàkka ji jàkka ji itam bunt bii ngeen jàkkaar lool sëñ Abibu nenn imaam fii la nekkan doon jàngale xam-xam lii sëriñ bi da koo daggan muy jàkka ji boo duggee ci biir da nga fa gis fi sëriñ bi daa jiite moom sëriñ son bu diirum ñeent fukki at yi yi wax nañu ñeent fukki at ak lu topp sax sëriñ bi moo ko daa jiital boppam sañ abib moom jumaa ya laa jiite moo tax ñaan sañ abib imam waaye su ma saa ñi bunt bii lañ ko daa ubbil ñi nga xam ne dañuy seeti sëriñ bi ak ñiy jàng xam-xam ci bunt bi lañ daa ubbi sañ abib di leen tëralal fi xam-xam sëriñ bi nag waxtu bi moom julli juróom bu jotee ñeent fukki at yi wax nañ ne ak lu topp sañ bi moo ko jiital boppam fii ba tey loola moo fi nekk dañ koo bàyyi nii def ko daara yi xam-xam joo xam ne ku génn ci daara alxuraan yi fii ngay dugg ngir tëralu fi xam-xam fee ca biir da ngay moom ba tey dañ ko defal xeeti bibliothèque boo xam ne mbindum sëriñ bi mag bi ma nga fa ak ñi nga xam ne dañoo doon ay sëti seexul xadim ak doomi kilifa yi nga xam ne dañoo jàngoo ci kër gi ba bind alxuraan seeni kaamil yi ñu daa jëbal sëriñ bi moom la sëriñ bi wutal bibliothèque dugal ko ci biir fii ñu tëj ko ba tey loola ma nga fa kon fii daal ci gàttal sañ jiili daal day barab boo xam ne mën nañu daal ci jeexeetali seexul xadim yi la ndax wax nañu bi sëñ bi daa jógee daaru xuddoos fii la daa ñëw dañoo wax ne naar yi daa jógee Mauritanie di ñëw bayti di fekk sëriñ bi fii leen sëriñ bi daa dalal moo tax moo ci indi turu daaru naar woowu waaye daaru rahman waaw waaye daaru rahman la ko sëriñ bi tuddee woon waaye naar yi fa daa tase na moo tax ñu naan daaru daaru naar waaw moo tax sëriñ bi dëkkee woon fii war maal gi mu warmaal fii tam moo tax mu def fi jàkka ji moom ci wàllu boppam mu dem dëkkee nag mais bàyyi lii ci penku dëkke ci loolu itam insha allahu rabbi dañ leen ci leeral ñu mën a leer kon daal moo taxit sëriñ bi nu ngi wutan jumaa ji jàkka ji sori ko nu mhm. ngi wutan daara alxuraan ji sori ko yi da ko féete ndeyjoor di féete ko càmmoñ moom coo xam ne tam su ma saa jógee ci fii rek buntu bi la daa aw dem ci biir bu génnee ci barab bi mu dëkkee woon jaar ñëw ci jàkka ji foofu am ak yenn kees la woon rek waaw loolu daal xam nañ ko ci jeexeetali barab bi ah barab bi moom daanaka mel na ne bu ñu ci doon xaw nañ cee lot xaa dañ ci dimbalu sëñ bi rek ñu man cee xam bi waaye buntu bii ma ma lay ma lay wan yii ma lay wan moom ginnaaw ginnaaw ginnaaw sëriñ bi la lañ fi def waaye buntu bi sëriñ bi daa jaar moom nee la nekk ci ginnaaw boo fi duggee ak dimbak ay ay garabi cosaani rek ba tey moo fi nekk xaw itam sëriñ bi da ko war naa ba nanguwut kenn ko fa dugg ngir moom it di ko xoolee sëriñ son bi di ko xoolee seexul xadim moom léegi-léegi rek la sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke di ubbi bunt bi dem dugg fa waaye boo jaaree ne ci ginnaaw fa la kàggu gone foofu tam xam naa dañoo amut ndigalu dugg fa waaye jeexital sëriñ bi yu baree baree nga fa ci ay xeeti mbindam ak ay xeeti kaamil yoo xam ne sëti sëñ ñoo ko bind ak doomi seex yi nga xam ne ci kër gi lañ jàng ak ñiñ ko joxoon ñëpp daal fii nag moom daana mooy li ma la ci wax yoo xam ne sëriñ bi moom ah, faatu fi waxtu benn yoon ba fi mu ne loola itam mooy jeexital booba ah moom lan moom lan moom def nii la muy jàkka ji nga gis gone yi fi nekk mooy li ma la waxan léegi maanaam daare alxuraan bi jàng xam-xam moo tax ñu bàyyi ko nii moo tax ñi nga gis ñu toog ba tey bis yu mel ne alxames ak ajuma ngir di nafar yenn yi ak di di mbindaat yenn yi moo tax ñu ñu kii ko ne te bunt bi ab rido la bu xam ne bu sañ bi mosaa jaare ne buñ aji rido bi moo lay xam ne solution bi ñëw na kii liqaam taxaw fi liqaam mbooloo mu julli kon la daal moo taxan jàkk ji mel nii ba tey ñu ñu ñu bàyyi ko nii ya defal baay aafiya jàmm judul deñ yaa ko may mbootu kuy jàng fii diiwaan yaa defal Cheikh Ibra Fall lam dul fay fii ñuy dugg nag <clears throat> mooy euh, biir kër gi maanaam mooy bunt bu mag bi nga xam ne boo fi duggee ci biir kër gi ngay ngay ngay ngay ngay jawale kon mooy kees yi gis nga ko nii ko nii kees yi dara dara yokkuwu ci dara wàññi ci na ko sëriñ bi bàyyi woon rek noonu lañ ko def yeesalaat ko ko kiyaas bi ma la doon wax mooy bii moom boobu bii jamono yi mu fi defalee booba lii tabaxu ban la wax ginnaaw ba lañ ko fokk yaa xam naa muy xew bañ dindi ko defaat ko nii waaw moo doon waaw moom ci la sëñ bi mu sa dëkk naka jekk moom moo waaw ah, bii yàgg na lool yoom du ko defa ngir ay dal rek moom dali gi rek waaw daayira yeeg ay gan yeeg ñooñu waa moo tax ñu def ko fi nii moom ba tey dong yi ne ci kër gi ñoo fi féete fi nii léegi li man doon wax ni kees gi ñuy dugg mooy kes bi nga dégg ñu naan sëriñ son bi dafa daa jàngale ak ñi nga ko doon wax léegi naan ko waa kër Sëriñ Abdou Khadir mën ne doomi yoon wépp rek kees jii lañ doon jàng fii mooy kees coquillage booba la sëriñ bi dëkkee ci coquillage bi booba boo soo desuwaatee jàkk ja bu sëriñ bi mosaa toog booba garab gii bari nañu ko xam lool ci ay doomi kilifa ci dëkk bi moroom jàng woon fee moom dafa mel ni dafa dee sëñ bi ñu buddali ko fee ne waaye fii la sëñ bi daa toog lal fi basak ñuy jàng teg fi seen alluwa ci garab gi léegi bant bii tam mooy la la waxan sëñ bi lu waxtu yàlla ñoru ko mooy su ma saa jàngale fii bant bii booba waa Gédé yi ñu sëñ Omar bu sa ñoom sëñ euh, sëñ euh, sëñ Omar bu sa ak sëñ bu sa ñoom ñoo ko baax woon di ko natt nga xam naa yow mi yaroo foofa <laughs> da ko xam su ko defee day am lu mu lay tegtal montre la boo xam ne bu ñu tolloo sëñ bi mooy jox kii nodd montre mu xool ko mu dem mu dem noddi sëñ bi nga xam ne bu jógee fii rek day daal def ànd ak mbooloo mi dem ca jàkka ja ñi nga xam fekku ñuy jàng moo tax mooy mooy li mu tey ci jeexeetale sëriñ bi la waaye fii nii waaw fii la daa xoole waxtu julli bi daal di dem julli ji yow <laughs> yow diggante boobu da nga xam <laughs> bant bi fii moom fi la sëriñ son bi doon jàngalee ba diirub lim sosa daara jee wut ay jàngalekat ñi mokkal ñi dem fay jàngale moom waa kër Sëñ Abdou Khadre yëpp rek mën naa ne fii lañ doon jàng ci garab gi ay sëñ mat loo maanaam taali daal alxuraan yi ngay dégg yëpp rek fii lañ doon jàngee moom garab gi ak gee te ginnaaw bi la fi sëñ bi ji yi di ko wéttalee garab yi lii ab gamaat la boo xam ne boo doon wër bu ma xaw a méngool dana xaw a jafe ndax moom it ku baax ki sëriñ son bi moo ko jox loon moo ko ndax ma wax jeexeti la gamaat ñun fekk wuñ fa waaye gamaat defe naa jamono ku tedd ka la amoon ca njaareem mm-hmm. moo tax sëriñ bi moo ko rëddul woon nii daaj loo ko woon mu mel nii waxtu gàmm ak waxtu yooyu ci la sëriñ bi daal génn dong di ko siyaar ba tey moo tax sëriñ bi sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke bàyyi ko mu melaat nii xanaa yees laa di ko yees waxtu wu nag di ko penturaat di ko kii moom it lu xew ñaar fii lay lay génn wàll bi di ko fekk di ko di ko siyaar moo tax ñu bàyyi fii mooy moom la ñuy wax gamaat boo déggee léegi bi may ma ne xëy ngóor si ubbil ma keesu gamaat ba ba tey loolu moo ciy wëy mooy keesu keesu gamaat bi waaye ginnaaw jàkka ja daal ak barab yooyu daal ñun ñun ñu yaroo ci kër gi daal jàpp nañ ne daal kees gi moom genn genn gënu ko fee tedd ndax diirub la sëriñ bi man moom fii la doon jàngale alxuraan ba ñu fi nekkan doon jàng bi ñu mokkalee leen soog a ber néeg yee nga ma doon laaj léegi waa Kër Saint-Bukhari yooyu jot nañ caa dëkk waaw sëñ Sëriñ Seex ak sëñ euh, Moustapha ak sëñ Siri sëñ Fallou ñoom ñëpp rek dëkk nañ ci néeg yooyee <laughs> waaw ak sëñ Samat sëñ Abdou Wahab ñoom ñëpp rek waaw ak Seex Bas <laughs> dëkk nañ ci néeg yooyu moom xam na kii nañ waaw noonu daal moom moo doon doonoon doxeenu sëriñ bi ci ci biir kër gi ak ci yenn barab yi xam naa am na yeneen i jeexital waaye ndagam sëriñ bi fi ni xanaa moo tax gone yor bunt yi ñaare tëj ko génn waaye kon danañ la won waaw danañ yeneen keesan ci biir ndax fii na fu ñu daan keesu neew ba keesug néew bi boo ko déggee ah, ak néew rek a fa nekkan lenn fa ko wéetloo mooy mbaan ndaal ndaal lañ fa tegan ca wet ga ak genn romb jaan gi sëñ bi daa toog nga xam ne koo wax ñu ànd sëriñ bi ñu la ma ca néew go rek da nga daal di xam ne waxtum duun waxtuñ ko mën a seer dafay nekk di jàng waxtu julli jot mu dem julli ji moo tax ñaan ko keesug néew bi mu bunt bi ci la jëm moom it moo nekk noonu xam naa néegu nekkutu fa waaye yeesalaat nañ ko leneen loo xam ne mandargaal ne fii la néegu nekkan foofu tam ay at la ko def ay ati ñu ngi ko maanaam kër gi ni mu bindoo ni dafa jàll balaa ba ngay wax mooy bee ku tedd kee ko fi bàyyi woon <coughs> sëriñ son bi ba tey dañ ko yes bàyyi ko noonu rek moom na mu ko bàyyi waaw mooy baraag bële ngay seen ci ginnaaw ne waaw baraag bële ngay seen waaw baraag bële ngay seen waaw xeeti mbaar yi ngi si yëpp moom lu fi sëñ bi bàyyi woon la sëñ bi siyaare soppiwu bi dara da ko bàyyi no xanaa di yes la rek ak pentuwaar rek ak siyaare ak ak loolu ba ci kaas bii kaas bii sëñ Abdou Dieng Bala Fadi sëñ Abdou Dieng Balla Fally néegum ñax la daa doon mooy néegi ñax yi sëñ Abdou Dieng yi nga daa dégg xam ne waxtu bu doon nawet sax bu ko doomi sëñ Tuubaa ne jógal dama bëggum néeg wax nañ ne ñax mi da ko daa wut ak bi di ko def ci ay magasin di ko denc ngir bëgg fu ko ndigal rek mu di koy def moo tax lii néegum ñax la woon ginnaaw bi nag ci mujjug sëñ bi la ko sëñ bi yeesu def ko ñu def ko séngi nii waaye kaaskaaru sëñ Abdou Dieng Balla Fally lañ ko daa wax booba ñax la woon te la bunt bi daa jëm noonu sëñ Abdou Khadre bi daanaka ay bés bu waaw waaw loolu bu ma saa ñëw xam nga loolu itam dafa dafa kii maanaam ndax sëñ Abdou Khadre itam du du ci ñoom war maalante bu ñu war maalante hmm. ak bëgg kenn ku ci nekk la ngay la ngay la nga yor di ci liggéey hmm. kenn du la ca xatal moo tax taxoon sëñ Abdou Khadre tàmman waxtu woo xam ne bisub alxames lay doon hmm. wala bisub ajuma nga xam ne li mu ci jublu woon bu ñëwee dana fekk solution bi ci ak ak dal ñu mën a waxtaan ak it mu di woo woo gone di ñoom ñi fi nekkaan si sànq soosu hmm. di xam fi seen àlluwa toll foofu itam fii la daa nekk ci ci tabax bii ci la daa nekk la sëñ bi son bu daa yendoog sëñ bi xaalis ba tàkkusaan <laughs> ñu ñaanalante waaye du ci àgg moom ba ci sëñ bi laat ba nañ ko hmm. xam nañ ko ci tab jàmba hmm. ajjuma rek la ñuy ñëw alxames ajjuma rek la ñu nangoo ñëw waaye bu ajjuma ca ngoon nag ñu daal di buñ jullijee ñaare daal di ki sëñ bi xaalis moom li ci ëppan alxames lay doon moom ndax ajjuma jee tax ñaare du mën a génn kiyaate lii mooy daara ji ba tey tout tànk yaa ngi nii ñooñu nga doon tudd léegi muy sang su baax sa nag pii lañ mujj moom fii lañ mujj ci booba fii lu mel ne ay baraag moo fi nekkaan ak ay lii lépp ay baraag la woon boobu mooy ñooñu nga xam ne tey ñooy magi yoon yi ñooy cosaani yoon yi ñoom fii lañ jóge moom dem foofu moo tax léegi bi ñu dugg man la industrie bu doon am ndey fii mooy ndey fépp moo tax ñu baax ñi daal ci doomi kilifa yeeg doomi sang yeeg ñëpp fi lañ génne su daanu daanu fi ñëw man ci ci ci ci sama gàtt rek sama kii rek ñooñu nga tudd nañ ma fi ñooñu wax ñëpp moom moom moom ay sëñ Aliou Touré sëñ sëñ Abbas Sall ñëpp dañ fa daa ñëw waaw ñooñu ñëpp dañ daa ñëw fii di ko def Alaaji Abdou Aziz da baax sax wax nañu ñëw na fi seet sëriñ son bi ndax ñoom dañoo doon niti diine ñoo xam ne bu ñu gisee seen mbokk mu ne ci diine nañu mën def xañtu si ko nempati si ko moo tax ñoom daa wax comme alxames dañ daa ñëw ñoom nag wala ajjuma jullee fi ajjuma waxtaan ak sëriñ bi daal di delluwaataat nga xam ne kon def lu baax ak jox ko bokk moom yàgg na fi kër gi lool <laughs> yàgg na ba tey jeexit yooyu yaa ngi fi ne rek ñooñu itam fi ñii ñooñu ma la léegi ku ci nekk sëriñ Seex am nga ak ñoom wëllëre woowee ndax ñoom it jëmuñu rek sëriñ bi jóge fi ñu dagg ñoom ñooñu seen i doom ba tey ñu ngi fiy ñëw fi ne di yendu ci kër gi ngir la ko seen maam yi daa def ak seen wajur kon ba tey déedéet moom ba nii rek moom alxuraan moom saa yoo ci nekkee rek suñu borom a lay fayal boppam ndax fi nit ñi gis nga leen nii maanaam koo ci gisit mu mu mu mu dem yalwaan itam day mel ni ñun bañ fi nekk day dem ba li ñuy yalwaan dañuy dàqal la ñuy jox waaye du ñàkk fi moom am na sëriñ bi defee euh, fajukaay ba mu am fi noonu la def ba dund bi ak lépp waaye yalaan ji nag day dem ba dongob daara moom ku jaar xam nga li ma wax yalaan xaw a dàq <laughs> li ñu jox wala léegi ñu sàcc def ko waaye sant ñu leen ko daal <laughs> sant ñu leen ko waaw ñu kàddu gi euh, sëriñ abo mi bu ko defee li ci des moom dana leen ko leeral kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf nañu ko waxee comme fii mooy barabu sëriñ Chouaïb sëriñ Chouaïb bu moom sëriñ bu mag bi moom nag euh, ci waa kër sëriñ Touba yi nga xam ne ci ati ati njaareem yi at yi sëriñ Touba nekkee njaareem ci la gën a àdduna ci ñooñu la bokk. mi ngi gane àdduna juróomi fan ci weeru koor atum xel sëch mooy bi sëñ Tuubaa demee Njaaréem ba am fa juróomi at tolloo 1916 lañ koy tolloo leen ci ati tubaab yi ca la gane àdduna waaye juróom wu góor mooy sëñ bu mag bi ni nga ko waxee waaye juróom wu jigéen nag mooy soxna Mariam Jaxate soxna Mariam Jaxate ñu bokk ci askan wu baax wu tedd ñoo xam ne diine rek al ak alquran la lañu xam loolu sax moo mooy li indi sëriñ bu mag bi tànn tànn wayu juróom woowu ngir boole leen ci kër gi ngir eh, alquran wax ne wala baladu tayyib bu yaxruju nabatuhu bi kon loolu mooy li ko sëñ bi itam moo ko moo ko mënees naa wax ne sax moo ko tërbiya ndax eh, dafa am bis boo xam ne dafa jóge ca daara ja ànd ak sëñ satu Jaxate mi mu ko joxoon boole kook moom mu ñëw ci biir kër gi sëñ bi yandoog moom ba kenn kendal loolu wax nañ ne li ëpp ci melaw sëñ son bu ci la ko sëñ Tuubaa def ci moom ci la ko waxee foo toogoo ci foo toogate del jublu xibla del jublu penku sëñ son bu kenn ñi ko xam ñëpp kenn mosu koo gis mu toog jublu fu dul penku sëñ Tuubaa ko digaloon ca boobu sax ko ne daal ci la ko waxe woon lay waxati del wax bismillah ndax ñoo xam da koo jëlloo ak gaal gaal ga diis lool fekk jëkkoon na koo wax looy waxat defat waxal mu ànd ak moom ci biir kër gi ñëw ci néeg ne ko jëlal gaal ga topp sama gannaaw gaal gi ñu ne ay téere ca nekk wala gaal ko diis la mu yëkkati yëkkati gaal ga diis mënu koo yëkkati mu ne ko lu ma la waxoon ne war naa la looy defal del wax bismillah waxal bismillah ma waxee bismillah nee na yëkkati ku mel na aw xob loolu lépp sëñ bi def ko ci moom ci ci ci bis boobu bëccëg boobu nag ak moom noonu nag ba tàngalal ko attaaya ba mu ko tàngal attaaya ba noppi fekk sëñ xam su jaxati ñëw sëñ bi xamal ko ne ko li tax ma tàngalal ataaya ji defal la teraanga ji lépp mooy nga jàng alxuraan te di ko jàngale loolu ko sëñ Tuubaa wax ci bëccëg boobu te boobu sax tànk la waaye loolu la def ci moom nekk moom ba ñu noddu tisbaar sëñ bi na teg ba ñu noddu ba àggal mu ne mu jóg nañ julli si ba tey kon mi ngi def ci moom fonk waxtu loolu yooyu yëpp nag boo xamee sëñ bi da nga xam ne kon meloo la wu sëriñ Tuubaa defoon ci moom kon sëñ bi moo ko daral alxuraan jàngal ko jox ko sëriñ Xamsatu Jaxate nijaayam ba mu ko koy jox daf ko ne moo ñan ñi mu bokkal sa la xat la bokkal wenn way jur wu jigéen sëriñ Saalihu seen ñaari way jur a bokk waaye def na def na sëñ Xamsatu joxuma la joxu joxuma la ñii ngeen aada ñu lay seen nijaay waaye dafa am lu ma def ci yow bëgg nga bëgg nga def ko ci ñoom moo tax ma jox leen kon sëñ Xamsatu fa la ne ba jàng alquran mokk na alquran ci nekkuk sëñ Tuubaa bi fi sëñ Tuubaa di jógee xam nga ci fukki at daanaka la toll fukki at ak benn bi bi waaye gannaaw sëñ bi nag la bind la bind kaamil bi mu bindee ba nopp sëñ Xamsatu boole koo kaamil bi fekk Cheikh Moustapha fi nekk di xalilab sëñ mag bi mu yóbbu ko sëñ Moustapha sëñ Mour Moustapha yóbbu leen tindóor yi fa lañ tàmbalee ñàkkum xam-xam gannaaw bi lañ lañ ci ku ñu wax sëñ Muxtaar Penda Jeng bi lañ ñëw lañ ñëw fii ci Touba kër Serigne Habibou sëñ Mokhtar Dieng Guyaar moo leen doon jàngal ci Tindóoti sëñ Mokhtar Dieng Guyaar gannaaw bi lañ ñëw Touba jàng àggale sëñ Habibou kër gi itam nga xam ne mooy Daaru Rahman di këru boppam gi sëñ Touba ko sancoon sëñ bi bu ñëwee Touba xam nga dafay sañ ci ay barab yu bokkul Daarul Quddus Touba moom mooy fee mu dëkk fee jumaa ji nekk moo doon Touba foofu kër sëñ Touba la woon sëñ Tuubaa bi mu delloo ci boroomam bañ ko indee ci biir këram lañ ko dugal denc ko gannaaw bi ñuy tabax jumaa ji nag lañ ko tabax foofu ci gannaawam sëñ bi nekkul ci biir jumaa ji xam nga jumaa ci mexrab lay tàmbalee jëm jëm jëm jëm jëm soow comme nii ñu def sëriñ Chouaïbou rek nga xam daa ne ci wet gi jumaa ji ne ci gannaawam noonu la barab bi mel kon daal ñoo ngi sant di gërëm di ñaan sunu borom dolli koy ngërëm yëkkati ay darajaam fu kawe sunu مستقيم دلالة على الجملة